marhaban waajtaayu tabaski gi ak yokkute njëg yi bokk na ci li gën a fës ci xëtu yéeni kay l'observateur ne ñu tabaski gi ñuy mal li ciy xeeñ neexut benn yoon boroomi njaboot yi ndax ay jafe-jafe yu tar ñu ci fas yéene jànkonteel bi mu desee juróomi fan dong ñu soobu ci Eidel Kébir bi yéeni ka groupe Futur Média mu ngi xam le ni njëgu produit locaux yi ñu ngi woy di gën di yokk bu baax a baax ci biir marché gi léeg sax yokkute njëg ya dafay ful mu doon am mbir mi nga xamante ne bu ñu moytuut dina daal di gàllankooral mbébétu nguur gi jëmale ko ci politique consommé local gi ya dee xarum tabaski yéeni kay laas mu ngi xam le jot ci ab jafe-jafe bu tar la ci père de famille yi suñu naataango yi nañu métti na lool ngir ñu a am xarum tabaski te leen waralu ko lu dul njog yu cher lool ci dëkk bu métti bi ya ci wàllum politique yéeni kay Sud Quotidien mu ngi xam le ni président Macky Sall fas yéene wu deltu ci ginnaaw benn yoon jëmale ko ci respecté calendrier républicain bi ginnaaw bi mu desee li ko néew ñaari at ñu soobu ci élection présidentielle yi nañu acteur politique yi ak ñi fare législative yi ñu jàpp fanweeri fan ak benn ci weerum sulet ndax tension préélectorale yi ñu nemmeeku ñooñu nag mun nañoo toog ndaxte président Macky Sall sore na loor ngir ànd ñoom ci seen bile mbëbëta ci biir yéenekaay Vox Populi docteur Cheikh Atta Badji titulaire u MBA ci wàllum science politique di itam ab analyste politique mu ngi def pour jàngat ci tolluwaay réew mi jëmale ko ci wàllum politique mu ngi xamle ni ci wàllum démocratie ci am réew li dooleel opposition moo di ab jàmmaarloo ndaxte nguur moo yor monopole action di doxal opposition bi lay gàddu waral muy xamle ni nguur di maanaam pouvoir dafa war a gën a fës di maanaam gën a am visibilité opposition moom dafay faral di génne wane boppam ngir ñu man kaa gën a dégg kon daa dinay jàpp ne opposition coow lay dundee te coow loole nag doonut lu baax ngir nguura yéeni kaay bés bi le jour li ko soxal moo di yàkku-yàkku yu ñu nemeeku ci lycée Ousmane Sembène bu Yoff yéeni bi nañu élève di bu cerveau mi nga xamante ne moo jiite woon yooyu lay ñaawteef daat nañ koy defeere yeneen juróomi élève jamono ji la tembe ñu ngi ci garde à vue ñu yàkkee seen salle de classe ci ab bi nga xamante ne daa dinay wër àdduna wërngal këpp yéeni kaay bés bi le jour nañu jóoriñ bu ñu dënk wàllum éducation nationale daal dinay diggée ni dinañ yëkkati ay daan daal di koy gàll ci losu élèves ya nga xamante ne ñoo doon def ñaawteef yu ni mel yéeni kaayu enquête daal di amal bu gëstu gu yaa jëmale ko ci fitna bu ñu nemmeeku ci espace scolaire u Sénégal gii yéeni kaay bi xaatim ci xëtam gu njëkk ne bu ñu buggee dëgg dëgg rek moo di ne bi ci boppam moo feebar jàngeen jëf